Ibrahima par rapport la question de Pape réewante a wala xamadi li xew de. vraiment j'ai pas j'ai pas suivi l'image. Hmm. comme l'a dit le doyen bu fekkee que ni

jukko yi moom war nañ ko defaraat quoi par rapport à la discipline moom. Mm. il y aura il y a beaucoup de points de points de points à à améliorer. Mm. donc pour ne pas dire que ni c'est de l'indiscipline mm. totale mais nag bon war nañoo améliorer yar gi ci ci ci ci tali bi. aussi par rapport ak euh, ce qu'il soulevé par rapport au trafic du BRT tamit ça pose problème parce que tey jii tamit bu fekkee que ne da jël benn ligne nga tàllal ko durant des kilomètres. mais daf leen avec interdiction de tourner ngeen ngeen classe BRT <laughs> non non non non non non non je parle du trafic non je parle voilà il non je parle du trafic xam nga tey jii par rapport ak trafic non pas clash mooy par rapport au trafic bi nga xamante ne noonu ko defaree je pense que ni ingénieur war nañu mhm. ah, nga jógee un point A daw deux kilomètres trois kilomètres on t'interdit de tourner et partout partout pratiquement dans le BRT y a des interdictions y a des interdictions de tournée. jërëjëf jaajëfal nañ leen bu baax a baax alors yéen. ñoo ngi leen di wax ngeen gën a améliorer seen ay services wàññi seen ay taxes. Mm. Euh, wàññi seen ay prix non prix waxaale la. wàññi seen waaw waxaale bi parce que des fois aussi waxaale bi parce que client bi xamoo ci ban état la nekk. taximan bi daf ko fay téye ci waxaale bu gudd. xam lu koy indi. donc qui fait la différence des prix. xaaral ma expliquer la donc ce sera bien. que yéen aussi ngeen am seen prix fixe. quoi non a nekk d'accord mais yéen aussi. Euh, ñu ngi leen di wax moo tax Thiès euh, ak yeneen régions yi mu am prix fixe te mënul leen ko am non Dakar capital la. ce qui fait la différence des prix c'est les heures et les périodes. merci beaucoup Ibrahima yéen aussi ñu yaakaar ni que di ngeen. vraiment euh, di ngeen euh, di ngeen di ngeen assainir seen milieu bi. mu bañ a nekk rido may ga comme ni ko Ndeye Pétaw di waxee ku mbëkk rek daal di dugg ku ñëw daal di bokk loolu aussi vraiment ngeen jéem a def tout ba ñii reconnaître leen ngeen bokk tali bi. ñu ngi leen di jaajëfal bu baax avant de terminer rek permettez l'ensemble des acteurs yi nga xamante ne ñu ngi milité ci ci GIE bi bon en par notre président Mamadou Yacine Yacine Diallo c'est lui-même qui devait être là mais malheureusement dafa am dafa am dafa am empêchement en tout daal Aïcha ñun on ne demande que ñu réglementé ñu et qu'on nous régularise de l'emploi mu ngi dox combat ngi dox bu ñu toogee waxtaan ci te bu ñu koy def tam bis bu ñu demee koy réglementé que ça soit pas au profit du patronat wala ay borom doole yoo xamante ni mooy loolu. nañu bàyyi xel ni kat acteurs yi nga xam ne ñoo nekk à la base. ñu defal jéem a fexe ba ñoom ñu mun cee ñu mun cee bénéficier.